quelle est votre euh, waaw bu bu soobee yàlla xam nga yàlla mooy créer mbokk mooy seet fa ko neex mu boole fa ay doomu aadama ñu ay mbokk. Thione Seck ñoo bokk benn papa man maa topp ci moom Thione ay mois la ma mage Khady Seck mi mu bokkal ndey ak baay soog a ñëw. ñoom ma pend soog a ñëw euh, sama taaw jigéen la Xadi Sekk mi ma la wax ni na la man moo topp ci coon moom laa tudde tuddee ca topp di góor ma tudde ko coon ah loolu la yàlla dogal kon daal ay ñoo bokk benn baay man maa topp ci coon coon moo ma mage ay weer waaw ah xam naa ne daal nit ku baax la woon ah yàlla defoon na ko muy kilifa ndax kilifa mënta weesu booy dem lu tolloog ñett wa juróomi nit topp sa ginnaaw loolu kilifteef mënu ko weesu te amoon na mbooloo euh, siiw nag yàlla ñaareel ñu mu koy def rek def na ci ñoom daraja euh, lenn rek nag laay jooy lenn rek laay jooy ci dem gi mu dem muy liñ ko sulul Touba liñ ko sulul Touba loolu lay jooy di ko mitloo jamono bu nekk saa yu ma yeewoo waaw ah, man man nag maa nag li tax may jooy loolu man waaw ah, liñ ko solu Touba moo ma metti lool lool lool lool ndax suñu papa ma nga tëdd Touba suñu bàyyi Serigne Touba lañ ko tuddee Cheikh Mbacke Seck la tudd bàyyam Cheikh Ablaye Ndiarème Seck la tudd Cheikh Ablaye Ndiarème taalibe Sëñ Touba la woon ba Sëñ Touba wàcce ko yebal ko gàddeyal moo maami ñoom Mourtala Amar moo tax naar yi kajoor yi darmanko yi ñooñu sëñ Tuubaa daf ñoo boole waaw loolu nag bu soo bàyyi faatu ñu denc ko Touba yaayam coon moom coon yaayam faatu ñu denc ko Touba xew ma lu xew waaye cat la waaw cat lu rëy la daal ñàkk giñ ko ñàkk suul Touba moom lu ma méttee métti maa xam nag man li tax may jooy loolu man maa ko xam waaw. waaw jërëjëf ah, jërëjëf merci beaucoup jërëjëf.